ko koye minen joli ko jigenu ifra i komay bacci jew domu yey rambo yala yala bakhna yala dina ñëw yala yaa sëri bari lo këri këram am la ko macam faalu mu sëriñ Mansour si kon dëgg dëgg mari londa my sister jole sama jole taana yara yara yana yara jole jole yana yara jole taana ya la internacional. baay mun na sekk gunge ma gëm yaay yaay niir ma yàlla mën na dimbale mun na sekk mama yàlla na àtte jaw faram Oy mamange Bayu leen di sant di leen di remercier bu baax a baax ci surprise bi ngeen ñëw defal man ak personnel bi yëpp vraiment dañu bég kontaan ndaxte ñu bari sax yéguñu ko woon dañu génn nii rek daal di koy daal di ci tombe ni ñu ah lii de moom xéewal la vraiment ñu voulons euh, dalal leen ah yéen ak sen équipe bi wa al Albourakh euh, Event ak Baye Ali Ndiaye bi nga xamanteni mom moom affaire bi en collaboration avec Yul Jador hein di leen di di leen di gërëm di leen di ci don bi ñu andil tay hôpital si journée xamna né mom journée de la femme beeg mois de la femme beeg gëna tax sax ñu daal décider ni vraiment dinañ ñëw ci hôpital Roi Baudouin pour mën a sagal jigéen yi et en même temps maladie muy gest bu noble parce que hôpital moom loo fii def moom vraiment jaamu yàlla la leen di leen di ñaan pour ñu li ñu commencé ñu ñu ñu continuer ko chaque année année bu jot ñu def même geste bi ah ñu recevoir leen di leen di donc euh, gërëm leen sant au nom du personnel personnel bi yëpp génn nañu vraiment dañu kontaan. ah chef de service yaa ngi fii infirmier yi médecins yi sage femme ñoom ñëpp génn nañu ah, pour mën a vraiment fekkee événement bu mel nii di ko sànq dégg nañu ñaan yi ñu ko doon ñaanal ñun nag suñu mënuñu ñaan nag waaye defe naa ñaan yi nga ñaan moom ñun ñëpp dégg nañ ko ñun ñëpp nee nañu amiin vraiment ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaan mu continuer nii ah yàlla defal ko fan wi gudd ak wér-gu-yaram ah, ñu ñu ñu ñu ñu fekkee ko ñun ñëpp tetal ko nous on est bo gisé sax vraiment dang kay dang kay sentir ci ci sunu si sunu kanam parce que ñepp ñu ngi taxaw naan waaw li nak ah waaw li li mom waaw donc ñun eh, jigen ñi ñun contane nañu hôpital mom amul du jigen kessé amna aussi ay goor yo xamanteni ñu ngi fi di liggéey waye nak c'est vrai que jigen ñe ëpp nak waaw jigen ñe ëpp ci biir hôpital yi donc ñun eh, jigen ñi vraiment ñu ngi remercier euh sen sen taxaway ñun li sunu sunu sunu waraf la parce que ñun ay doomu géejawaay lañu fii lañ juddoo fii lañ yaroo fii lañ màggee hôpital bi moo fi dugg sax dama ne dafa am changement parce que fajoo naa fi ba tàyyi entré nañu fi ba tàyyi tey lii lu ma waroon def bu yàgg yàgg yàgg la peut-être nag tey la ko yàlla dogal incha allah maa ngi ñaan yàlla heure bi ma ko mënee chaque année ci weer wii ak ci heure bi ñu ñëw taxawaat fii defa ko li def nag dañ ko xeeb parce que tey boo juddoo ci gox ànd ak say xarit parce que lii mën kese mënuma ko.

que nous avons mené en pareille occurrence. Par le passé, la célébration de la Journée internationale de la femme est inscrite en lettres d'or dans l'agenda de notre organisation. En direction du 8 mars 2018, avoir Evans a décidé de procéder à une remise de dons à l'hôpital Roi-Bedouin de Guédiouaï et au village SOS de Dakar. Choix, nous pouvait être mieux adaptés vu la situation de d'insécurité et de pauvreté qui sévit partout au Sénégal. En effet, les malades et les enfants ont besoin de protection et d'assistance. Cette option coïncide avec un tournant décisif où l'indice de, développement humain est privilégié pour mesurer l'état de l'économie d'un pays. Par ma voix, Aboua Eben se tient à remercier tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui et plus particulièrement nos mamans, nos femmes et nos filles. Nous les célébrons aujourd'hui, mais aussi lors d'une soirée au Grand Théâtre National, le 10 mars prochain. Que Tout-Puissant veille sur les veillantes femmes du Sénégal et du monde entier. Merci de votre attention et bonne continuation. c'est lu koy lu koy waxee lu rëy la lañ koy waxee c'est c'est c'est grandiose ba tax na lii daal bàyyi leen ba nu pare ba nu dem SOS ñu am lu nu def dégg ba kenn laal leen jërë ngeen jëf. ndéygéey lu toll nii tey yéen ñi nekk ci bërëb bi tey Baye la Ndiaye ak mu àndal ñëw def fi jëf ci toll nii yéen euh, normalement lu mel ni dina gën a seen liggéey. waaw dana yombal sama liggéey nag yombal ñëpp suñu liggéey ndax euh, Baye Ndiaye mi ñoom si banlieue bi man laa dëkk xam naa ko bu baax ba dëgg yàlla te lii mu indi fii ah lu rëy la suñu man man sax ma dama fa bett sax fi ne suñu yaram sax dafay daw ndax euh, kii ñu jiite nii ah ku ko fonk dañu fonk nañu te lii lu rëy la ndax dañoo fonk ñun mu ngi nii taxaw dañoo fonk dañ koy gërëm di ko sant te Baye njaay mii lu mu def ren ah naka def déwén mu yokk papaam yokk ndax lii mu def ni si papaam la ko moom xamuma waaye xam naa papaam man fii laa juddoo yaroo fi bon nag man xam naa leen bu baax waaw kon nag Diop mi xam na ma. waaw lu baax la la la ñu bañ juddoo ba lu baax la ñu xam. Mhm. moom la ñuy continuer moom la ndax seen baay moom la xam seen yaay moom la xam bon nag ñoom tam loolu lañuy xam. waaw lii nag lii nag man lii lii ñu def lii ñu def nii man lañ ko defal ndax man man xamuñu ma waaye seen papa xam na ma seen yaay xam na Diop mi xam nañ ma ñoo ma yar. bon nag lii ñu def nii man lañ ko defal defal ko dërëtis nga kii ku ko defal defal na ñëpp mm-hmm. te nit ku baax a ngi nii nit ku gore ngi nii nit ku am sutura ngi nii mm-hmm. moo ñu yëkkati ba si kaw waaw dañoo fekk ñu dañoo fekk ñu gerteelu mu yëkk ñu ma si kaw bon nag ko ko defal lu ne suñu xol sedd na te lii yal nañ ko mën déwén ngeen gudd fan Baye Ndiaye ñëpp gudd fan ñu bokk ñëpp ak équipe beeg yëpp gudd fan am wér gu yaram ah am mujj go rafet ndox du bàyyi yoonam mm-hmm. dañ ko doon ci alima jigéen dënd ko ci alaaji Ala Ndiaye jaale ko ci xujja Jóob mbaax da nga leen war seen bàyyi moo ne képp ku ñuy topp tànkam fi ngay jaar dañ koy leeral kenn ku nekk nag lañ la yaree bu sa kàddu jibee moom lañ lay dégloo loolu dañ ko donn ci alima jigéen donn ko ci àll njaay doon ko seeni maam kon lii rek la ñu mën a def lii daal lu ñu bett la ndax euh, personnel bi peut-être ñu bëri ñibbi nañu mais am na ñu fi des te ñu fi des ñëpp bi ñu ko yëgee ñëpp génn nañu pour teewee lu mel nii lii nag euh, euh, vraiment amuñu lu euh, xamuñu dal luñuy wax yane parole lañu utiliser pour remercier ñi jëf-jëf ji ludul di leen ñaanal gudd fan ak wër ak li ñuy def yàlla na leen ci yalla jàppale ñu saxal ko di dimbali wa néew ji doole yi di yalla jëmee leen kanam daal parce que on est trop ému parce que fi mu ne nii lii def ñu bett def ñu bett vraiment contenté te sante sant personnel bi yëpp nag madame daa fax yow yàlla na nga dund ba doon ministre loolu waaw euh, gis ngeen euh, comme ni ñu ko gisee nii rek mhm. euh, sama njëlbeen wax rek dama ne doom ju ne tëb sa tëbinu bàyyi rek xëy rëq sa ndigg ku ñu alaaji Alla la jur defe naa ni boo jëfee kenn du ni cim mhm. waaye tey bàyyi bu jëfee jëf ci da ko doon na ci ay magam tudd Abdoul Aziz rek doy na ci jëf Masata Alla Ndiaye laay ñoo ñëpp tey jël seen tànk bi teg ko fa seen bàyyi daan teg tey gis ngeen jëf jaa ngi nii ñu ñëw fii ci hôpital Roi Baudouin gis ngeen ceeb baa ngi nii matelas yaa ngi nii boisson beeg ndox meew ventilo yi ñu dara ngir rek dimbali nga xamante ne que tey ñoo tëdd fi tey di ay néew ju doole waaye tey euh, maalaw delloon na gopp ba ca garab ga ndax bàyyi géejawaay la bàyyeekoo géejawaay la am doomi banlieue bi la

huit euh, mars léegi la lan nga wax jigéen ñi en tant que directrice. ah man de sax weer bi ngay wax naan le huit mars euh, euh, mooy pour jigéen ñi. bu mm. doon sama sago duñu wax sax ay huit mars dañu naan année yëpp. premier janvier ba 31 décembre jigéen ñi la te jigéen ñi moom macha allah waaw c'est pas que jigéen laa que may wax ci jigéen ñi lu baax. waaye yow mi góor yow tey moom buñ la waxoon sax buñ la laajoon sax si jigéen ah sa bëti dina taa waaw parce que jigéen mooy jur jigéen mooy mooy mooy mooy mooy élevé doom yi jigéen daal vraiment am am nañu voilà te léegi tamit góor jigéen ñi tamit dañu dañu dañuy dañ li góor di def jigéen da kay def avant am na ay liggéey yoo xamante ni góor rek ñoo ko doon def léegi da ngay gis jigéen ñi ñu ngi ci lépp lépp nañuy def ah vraiment gàcce ngaalaama jigéen ñi ma leen di sargal ci weer bi. Ah, di leen di di leen di encourager di leen di wax ni vraiment nañu nañu góorgóorlu. ah léppay baax. jërëjëf voilà ma beaucoup euh, madame la directrice kontaan nañu bu baax baax jërëjëf jërëjëf.